aousubillah min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalallahu ala seyidna muhammadin wa alihi wa sahbi wasalim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ci risala ibn abi zeydin alxayrawaani ci sharha fawaqi dawaani si buntu baab ma yajibu minhu alwudu wal xusl ñu jàngoon lan li nga yi nga xamante ñoom ñooy yàq jàpp directement may dama may ngelawal ak dem douche ak masiw ak wadiw ak mani su fekkee dafa génn ci lu bànneex wala mu génn ci bànneex bi nga xamante ni baaxooñ ko te nag dañu ñëw ji di jàngale yoo xamante ni ñi nga xamante ni maanaam duñ yàq njàpp direct maanaam ñoom ay sabab lañ maanaam lu yàq njàpp mën na si xew mën na si bañ a xew ñi bañ ko ñi far ko boole ci li nga xamante dafa yàq njàpp mu ne moom daanaka mu ne waajib dina war doo jàpp min zawal aqli ci xel mu dem bi naw min ci nelaw mustasxalin mustasxalin yuñ diislu aw ixmaayin wala xëm aw suqrin wala mand aw taxbatul junooni wala daanu rab nee na jàpp dina war maanaam ci xel mu dem moo xam ci nelaw la wala ci xëm wala ci mand maanaam yooyu soo gisee soo xoolee yooyu noonu nga gis ne maanaam njàpp man na si maanaam luy yàq njàpp mën na ci xew mën na si bañ a xew maanaam dañuy bañ ne maanaam suñu la waxee ne maanaam su xewee manaam su xewee nga dem jàppale su xewul nga jàppale maanaam loolu suñ la ko waxee yow doo ko mën a dakk parce que moment bi nga xamante ne yaa ngi ne la wala moment bi nga xam ne da nga xam nga def li nga xam ne dafa yàq njàpp te doo ko yëg moo tax ñoom dañ lay far wax naan su fekkee sa xel dafa demoon wala nga xam soo yeewaatee soo waa njàpp dalay war pour nga def ko. xoolee wàllu nelaw nag moom dafa am ñeenti xaaj nelaw su fekkee nelaw yi dafa gudd te diis nelaw yi noonu dafa yàq njàpp su gàttee te diis dafa yàq njàpp ba léegi maanaam la nga xamante ni dafa gàtt te woyof soba boobu noonu soo yeewoo maanaam nelaw bi nga xam ne dafa gàtt tawaf mooy nelaw bi nga xamante ni yaa ngi téye sa kurus di wirdu suy bëgg suy rocceeku sa loxo sax da ngay yëg lii muy bëgg a rocceeku soo baa nelaw yooyu noonu soo génnee ci nelaw da ngay dem nga jàpp jàppuwaat loolu dara nekk si ak nelaw yi nga xamante ni dafa woyof te maanaam dafa gudd te woyof yooyu noonu mooy yi nga xamante ni maanaam yaa ngi sa néeg ku di nga ko yëg ku génn di nga ko yëg nelaw yooyu noonu moom dañuy sopp ne soo jugaatee rek nga jàpp waaye nag nekkul nelaw bi nga xamante ni dafay yàq njàpp force yooyu dañuy sopp rek soo jugaatee nga jàpp juwaat amaa nelaw yoo xam ne dafa gàtta diis moo xam dafa gàtta diis wala gudda diis moom soo jugee moom da ngay jàpp ci rek loolu mooy wàllu nelaw amaa fekkee ne wàllu xam nag moom ne su fekkee dafa xam ximale ko waat kooku noonu njàpp da koy war lu tax parce que kooku noonu diggante boobu noonu ma xam kooku soo ko ñoppati wala nga def ko dara du ko yëg comme lu yàq njàpp mën na si xew te du ko yëg moo tax su xewee rek moo tax su ximali ko dañ naan dañ koy wax naan demal nga jàpp jiwaar moo moo xam lu yàq njàpp xewoon na si wala xewu si waaye dañ koy wax naan demal nga jàpp jiwaar ne ko ne ki nga xam ne dafa màndi maanaam nit su màndee mën na wax lu mu tayul def lu mu yëgul moo tax dañ naan comme loolu lu yàq njàpp mën na si xew lu yàq njàpp mën na si xew mën na si bañ a xew waaye comme comme daal ah mën na si xew maanaam mën na si xew mën na si bañ a xew te dañuy bañ suñ ko waxee ne maanaam foog nga fàttali ko def fu mu xewee rek nga soog a mën a jàpp mën loolu xew si te moom du si xam dara moo tax saa yu xel mi demee rek su ñëwaatee dañu koy naan yow sa jàpp yaa na foog nga jàpp jiwaat ngir Malick ñoom li ñoom lépp li nga xamante ni maanaam lépp li nga xamante ni mën na la yóbbu ci lu def lu xaraam rek ñoom ñoom dañ lay baaral bunt bi pour nga bañ a yéegi ci loolu noonu dangay yéen dañ dañ leen naan dañ ko si ba pare naan la ba maanaam maanaam taxaw na la waaye ñàkk ko def moom moo gën mooy lan maanaam dañ ko sib te lu sib suñ la may ne la suñ may na lii dafa sib nga koy def chaque jour lu mën na laa pousser ba nga mën def lu xaraam kon dangay gis ne mandi maanaam wàllu mandi moom su fekkee ne da nga moo xam mandi ci lu dagan la wala ci lu xaraam soo mandi rek soo ñëwaat dañ lay wax naan njàpp ju foog nga njàpp ju am su fekkee ne wàllu fas jabar ak yooyu noonu la moom soo mandee ci li nga xamante dafa dagan fas sa jabar loolu noonu mànd boobu noonu suba dañ naan fas boobu tàbbiwul amaa ni su fekkee dafa mànd ci lu xaraam fas sa jabaram na ndax ndaxte lim lim jëgg def moo xaraam parce que moom dafa mànd ci li nga xamante dafa xaraam naka tamit mu ne aw taxawatul juróomi wala daanu rab ma mooy daanu ji ak yooyu noon wala daanu dof wala crise genre yooyu noonu su fekkee nit genre yooyu nga xam ne mën na daanu ci benn digg maanaam ci benn quelques heures ñowaat diggante yooyu tamit dañ koy naan mu jàpp mu jàpp jowaat parce que moment boobu noonu man def li nga xamante dafay yàq njàpp te du ko tey maanaam du ko yëg parce que moment boobu noonu xel mi dem na. xel doomi aadama maanaam nekkul li nga xamante ni dafay disparaître dem ba faw ci yii nii maanaam day maanaam day xaw a si kanam sax borom sharhab dina ko maanaam xel xel xel mi dafay dafay nëbbu benn diir ñëwaat mais su fekkee dafay nelaw wala mu xëm wala mu màndi xel ba dafay dem xel doomi aadama nekkul loo xamante lu ñuy teg bër la ba mu ngi nii waaye nag benn leer bi nga xamante ni ci xol lay jugee di tàbbi su yuur loolu noonu moom may xel doomi aadama ñu ñëw ci sharha bi mu ne mais tanbihaan lii yeete la law saala bu demoon law saala bu dañoon aqluhu xelam bi taraadafil humumi coppalamte njàqare alay ci moom fa xoola wax na ibnu qasim ibnu qasim laa wudu dir dir njàpp alay di ko war nee na su fekkee nit su fekkee nit dafa am ay problème yu bëri ba nga xam ne ba nga xam ne xelam day jógee si moom nee na ibnu qasim ibnu qasim moom li mu wax ci kooku noonu moom mooy njàpp waru ko loolu mooy lan mooy parfois da ngay gis nit mu am ay problème adduna nga xam ne yow di nga nekk di wax ak moom benn moment mu jekki jékki rek absenté wu nga xam ne yow li nga wax yëpp du la dégg da koy teg loxo sax mu mel ni lu tiit comme diggante boobu noonu lu yàq njàpp man na si xew mën na si bañ a xew moo tax ñu la saa yu loolu amee rek mu dem jàpp juwaat comme nag nu mënuñoo xam ndax xew na wala xewul moo tax ñu ne ko comme léegi da ngay dem nga jàpp juwaat mu ne wala li nga xamante qaala wax na ko radiallahu anhu yal na ko yàlla mu koy gërëm wujuwul wudu wala war a njàpp wa qaala wax na ko nee na wa qaala wax na ko bii ci moom ibnu naafi ibnu naafi benn ngiru Malik la ibnu naafi tamit moom ibnu naafi ibnu wax moom mooy loolu yàq na njàpp mook Malik loolu la wax ñoom ñaar Malik nee na loolu day yàq njàpp ibnu naafi nee loolu day yàq njàpp waaye ibnu Qaasim moom lu wax nee na yàqul njàpp comme naa Naafi ak Malik ñoom ñaar ci benn wax boobu noonu ci lañu dëppoo nee na waxii la wax na Malik Malik foofu moom xaay xamul ah, ndax moom xaay nu aju toog la maanaam Malik bi loolu xew ñu ne ko ndax kooku noonu nga xam ne dafa am ay problème ba xel bi dem ak di maanaam ba xel bi disparaître benn moment ñëwaat ndax loolu noonu day fekk mu taxaw maanaam day fekk mu taxaw wala mu toog maanaam ñu soog ñu soog ko àtte njàpp li yàqu na mu wax na ma xoola wax na Malick Malick moom wax na mbale mu ne ahabu li ñu gën a bëgg ilayhi ci ci moom ay tawadda moom mu jàpp Malick lu moom mooy li ñu gën a bëgg ci kooku noonu moom mooy mu jàpp comme foofu noonu gis ne Malick lu mu waxee comme day li mu waxee dafa mel ni loolu warul man dafa ne li gën a bëgg moom mooy jàpp su waxoon li gën a war ci moom mooy jàpp ñu xam ne comme loolu saa yu xew ci jàpp rek comme su jullee julli boobu baaxul waaye dafa ne loolu li ñu a bëgg moom mooy jàpp comme Malick Malick fii dalay jàngal ne la lépp li nga xam mën na la yóbbu ba nga mën a def lu xaraam comme dalay arrêté buntu boobu noonu nga bañ ko def parce que nit su fekkee ne nit maanaam ñàkk jàpp di ko jullee loolu dafa xaraam te yow su nañ la sa xel mu demee wala sa wala nga am ay problème adduna ba sa xel mi dem soo xamee maanaam sa xel bu ñëwaatee rek demal nga julli ji lu amul benn problème comme nit xelam mën na dem mu def li yàq njàpp te du ko yëg te su boobaa su payee di dem rek continuer julli moo tax genre nii su xewee soit dañu naan demal nga defar jiwaat di sax amoon nga njàpp waaye comme wóolu ñu dañu leen naan demal nga jàpp su dem jàpp jiwaat soo baa loolu confirmé jàpp bi nga yoroon mu ne wam nee na nee na ma moom maa bokk na ci li nga xamante laa yàqu laa ci lab fi xubbillaa ci bëgg yàlla taala xaw na xataa xaawa ba mu fàddu al ixsaas yi ci yëgam nee na bokk na ci li nga xamante ni dafay yàq njàpp mais waa ji nga xamante ni dafa fannaa li la ñuy wax fannaa ki nga xamante dafa nekk man dafa maanaam dafa nekk ci bëgg yàlla dem ba ci yàgg rek lap ba nga xamante ni yeggatul sax ci maanaam kooku noonu dem na ba nga xam nekkatu fi moom mu ngi ci pay yàlla bi noonu ñu wax ne xoola wax na nee na Youssouf bun Omar Youssouf bun Omar lu wax ci kooku noonu moom mooy njàpp li yàquwul loolu la Youssouf bun Omar wax moom nee na ki nga xamante ni dafa fannaaw maanaam ki te loolu mooy ihsaan loolu ko yeneen ci firi nee dafa maanaam ki nga xamante dafa ci bëgg yàlla ba nga xam ne yëgatul dara ci wàllu yaramam kooku noonu njàppam yàquwul loolu Youssouf bun Omar wax nee na borom charab moom lu mu wax moom nee na moom dafa indi benn kii teg ko ci wax wax boobu noonu waaye moom waxul ne loolu lay yàq njàpp wala yàqu njàpp mais moom dafa ne dama ci maanaam taxaw na si daal mu ne wali ñeel na ma fii zaalik ci loolu wax fa waqfatun ak ab taxaw maa naqdil wudu yi ànd ak maa naqdilu ànd ak maa naqdilu ànd ak yaa ànd ak yàq bi zawaale ci xel mu dem asaane ñaareel ba moom nee na lan moo tax nit su fekkee ne moom lu mu wax mooy nit nit la moo bi zawaale yi ci xel mu dem bi naw mi ci nelaw nee na lan moo tax nit su fekkee dafay nelaw su xëymal maanaam su yeewaa dañ kee naan yow da ngay jàpp juwaat moment boobu noonu xel mi dem na te waa ji nga xamante ni dafa nekk ci euh, bëgg yàlla ba xel mi dem ba nga xamante ni yëgul dala yëgu yëgatul dara ci wàllu yaramam nee noonu njàpp ji yàquwul nee na moom daf ci am ab taxaw di diggante boobu noonu moom moom waxul ne yàq na njàpp ne yàqul moom daf ne dama ci am taxaw def def foofu noonu wax joow maanu yow su fekkee ne yow soo ànd ak nga ne soo soo neexee nga ne man tamit ba tey taxaw naa ci nga ne njàpp ji yàquwul soo nee nga tënku ci maali wala nga tënku ci naafe ñoom ñaar comme ñoom ñoo ne yooyu noonu day yàq njàpp soo nee nga dem tënku ci kii ki nga xamante ni moom mooy ibnu xaasim moom nee na loolu du yàq njàpp nit ku la neex rek mën nga tënku ci moom ñoom ñaar ñii ñëpp seen dégg-dégg lañ indi teg ku kum la ci neex rek mën ngaa jël waxam ne man subaa ci kii laa sukkandiku nee na fasarnaa firi nañ zaawal aqli xel mu dem bis ne ne bil sara ci xel mu nëbb li ma xoola ngir li nga xamante wax na ko alaamatul faaqihaani bon xam-xam faaqihaan an aqlu xel laa yazaal da ko yóbbu an naw nalaw wala irmaanu caagan xëm wala sukun lu caagan mande way nama way nama straw naka da koy nëbb rek da koy nëbb rek faqat dong ba nga fàqiyaan moom li wax nee na lu ñu firee maanaam xel mu dem mooy xel mu xel mu nëbb maanaam xel mi nga xam ne dafa dem ci wàllu nalaw wala mu dem ci wàllu xëm wala mu dem ci wàllu màndi xel boobu noonu du xel mu doon loolu xel mu nëbb la parce que waxoon nañ ne xel doomi aadama mooy benn leer bi nga xam ne dafay jugee ci xol lay jugee di tàbbi yuur loolu noonu may xel comme moment bi nga xamante doomu aadama dafay nelaw loolu noonu day xaw a nëbb waaye nekkul loo xamante ne dafay dem su fekkee ne loolu dafay dem comme si yeewaatee comme loolu du fa nekk moo tax comme moo tax ñu ne loolu dafay nëbb loolu dina nëbb ci wàllu maanaam ci moment bi nga xam ne dafay nelaw wala mois bi nga xamante dafa xëm wala moo bi xamante ni dafa mànde loolu dafay nëbbu waaye tekkul ne dafa dem wakazalika ne wakazalika naka noonu aljunoon daf almunqation buy dagg dem ak dikki bi xilaafin mut eh, bi xilaafin mutbaq wut ak dof buñ dëpp fen na ko ne ne ne fen na ko yusi dukkati ne fen na ko yusi da ko yóbbu laa maxaalatum amul benn pexe nee na dof nag ñaari xaaj am na dof boo xamante ni day dem a dikk maanaam dof boo xamante ni day toog benn moment nit maanaam nekk en maanaam nekk nit nga xam ne ku nekk mën nga jëflante ak moom mën nga jaay ak moom mën nga jënd ak moom nga xam ne kooku mu ngi nekk kooku noonu moment bi nga xamante mu ngi nekk noonu su njàppam tojul def dara jotu ko ma moom bi nga xam ne xelam boobu noonu dafay dem moment boobu su demee su ñëwaatee day war a njàpp day waral njàpp parce que moment boobu noonu lii maanaam ati dof bu ñu wax noonu day xewaat si moom ak dof bi nga xamante ni kooku dafa mboobu noonu dafa dëpp maanaam koo xamante ni addunaam yëpp moom dafa dopp waral maanaam mooy ki nga xamante dafa dof rek moom addunaam yëpp su fekkee fukki la tamit dof maanaam su fekkee fukki la la dund ci addunaam lépp wàllu kii dof la koy def kooku moo koy bokkul kooku moom saa kooku moom kooku amul njàpp sax bañ wax naan njàppam kii na wala kiiwul kooku mu amul njàpp sax parce kooku sax du mukallaf kooku dara waru ko parce que ab daf boo xamante waaw kooku moom dara waru ko a dikk nag kooku moment bi daf bi daf su ko amatul njàpp amaa daf boobu su dañee rek su jàppee day am njàpp te mois boobu noonu su jaayee man nañ ko nangu su jëndee mën nañ ko nangu loolu mooy darsu tey bi in uridu illa al-islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu